jërëjëf mbokk yi xanaa dañuy wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ñoo ngi fii tey Touba guy min la ci bés bu tiis di bés bu métti boo xam ne yoonu murit dootu ko fàtte bi lay mi diini di dem ak Cheikh Sidil Mokhtar ibnu Cheikh Mahamadul Amin di juróom-ñaareelu xalifa Cheikhul Khadim waaye di ñetteelu Amin gis ngeen rek bu yàggul la ferakam ju tedd jooju bàyyeekoo sëñ Basiru Baara ñu di ko jooy noppi guñu lii dal suñu kaw gis ngeen taalibe yaa ngi nii ci biir kër gi foo toll si kër si riir murid yi xalab-xalab fii koo ci seen tey gis ne dënn bay riiree xam ne tey ñàkk na waaye loolu mooy di sob yàlla waaye dama wax ne Cheikh Sidi Mokhtar yàlla na ko yàlla fayal li ko waroon lépp ci yoonu Cheikhul Khadim def na ko yaatal na yoon wi taaral na ko yeesalaat na ko xaddal njabootu Cheikhul Khadim képp fépp fooy mën a doon boole xilaaf ak Cheikh Mouhamadoul Moustapha boole xilaaf ak Cheikh Mouhamadoul Amine boole xilaaf ak Cheikhul Khadim jël ay rakkam ku ci mel ni Cheikh Mouhamadoul Mountakha ku ci mel ni Cheikh Mouhamadoul Bachir ku ci mel ni Serigne Cheikh Seye ku ci mel ni Serigne Siri moom Cheikh Abdoulaye ku ci mel ni Cheikh Ahmadoul Mokhtar moom Cheikh Mouhamadoul Moustapha ba képp képp képp koo xamante ne njabootu Cheikhul Khadim nga bokkoon Cheikh Sulu Mokhtar féet na la place su bàyyi féet na la place su mag ormal na la sagal na la suturaal na la bésam baa ngi nii waaye bésam nii rek la mën a mel waaye ndokk yàlla ndokk yàlla murid yëpp gërëm nañu ko balay sa ndokk yàlla murit yëpp sagoo nañu ko balay sa kon dañu ànd ak yéen xool taali bi ku ci nekk tey nag nga dundee bis bu tiis bi ñu ngi naan sarax si aljuma lay doon ak ko war a wuutu waaye yoonu murit yoon la woo xam ni kenn rek kay jiitu ñëpp topp murit yëpp a ngi tekk ànd ak dal ànd ak yar ànd ak orma ndax ci loolu lañu ci loolu la ñu xamee yoonu murit ba lépp lu kilifa yi décidé rek ci bésu sarax gi wala lépp lu kilifa yi gis ne kër kooku moo ko war a ootu tey bu soobee yàlla incha allah dinañ ànd ak yéen communiqué ko kon ñu ànd ak yéen dugg ci biir kër gi waxtaan ak taalibe yi ku ci nekk nag nga dundee bis bi. tey ñëw fii Touba ci bés bu bés bu tiis bés bu metti waaw métti na de waaye nag lii moom mënut a ñàkk loolu la yàlla dogal waaye Sidi Muxtaar gàcce ngaalaama waaw tarax yëpp boole na leen dana yàlla taas ci barkeem. te yàggal fi njobootam barke maam Cheikh yéen yàlla liggéey barkeel seen liggéey daraje sëñ tubaak ak maam Cheikh Rafal defal nu fajug aajo ak bur mu jub fii kenn nekku fi bis bi ku fi teew xam ne kenn nekku fi ci yàgg yàgg nii rek waaw kon nag nan dolli góorgóorlu ca xool sunu kanam ca xool ci ñii lii kat a mujj moo jëkk moo mujj yàlla na yàlla taas ci barkeem darajey sëñ Touba ak maam Seera Fall barkeem maam Seera Fall fajug aajo mbir mu jub. sëñ ñoo ngi leen di leen di siyaare bu dund tey bés su métti ci waaw loolu moom am na moom wax dëgg yàlla ñu dund loo xamante ne xar la waaye nag sant suñu borom daal bu baax a baax xam ne dogal suñu borom moom bu ñëwee rek ñu koy moom suñu borom moo ne inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun xanaa li xam mooy di ko ñaanal rek suñu borom. yokk ay leeram taas ñu ci barke barke borom Touba lay ziar. yàlla na yàlla nu ngi yoolu tey murid di dund lu metti waaye sant yàlla métti na trop sant rek ndax baax bu fi doon tey jóge yonent bi du fi jóge Serigne tubaa du fi jóge waaye sant bu baax a baax a baax doollee sant yàlla rek euh, yàlla nañu yàlla taaf ci barkeem métti na daal métti na waaye sant Serigne Touba bu baax rek sant bu baax rek yaram ñoo ngi lay ziar. ñoo ngi leen di ziar ñu baax. ñu fekk leen tey ci bés bu met tey mooy eh, dem ak Cheikh si Mokhtar. waaw ñu ngi dellu ci sant yàlla bu baax a baax baax a baax a baax te xam ne am na naqar bu méttee méttee métti métti waaye ñu dellu suñu lépp ci loxol yàlla te xam ne loolu la yàlla dogal yàlla nag di ziar waa Touba gépp xet na Sëriñ Touba Mbacke fekk leen fii ci bés bu métti tey. ah bis bi dem tiis na métti na lool nag xol tooy nañ waaye ñu dëkk Touba de mën nañ cee bañ a xat-xat loo ndax bu yàggee di nañ siyaare nañ may gan ñi ñu siyaare dellu ci jaamu sëñ Sidi Muxtaar de yàlla na ko Serigne Touba teeru barke Serigne Touba ak barke Serigne Safa Basiru sant nañ suñu xol nag tooy na lool tooy na lool. yàlla na ko Serigne Touba daal loolu lañ ci wax daal yàlla na ko Serigne Touba teeru. soxna si ñoo siyaar bu baax. bu fekk leen ci bés bu metti bis bi kay metti na moom ndax sëñ moom ni dafa métti trop trop waaye yàlla na ko yàlla yërëm ca xaare ko àjjana yi gën a kawe kawe rek ak mboolem jullit moom fa fekk ak ko fa fekk rek. yéen ko dundee. ah xanaa dund na moom si dund lu rek bis bi daal te metti na trop trop moom tey ji daal metti na moom waaye buuxante bi nag jiru ko ci ñun ñu fi dëkk nañ leen jéegal gan yi ñëw tugg siyaare bu ëllëgee ñu dikk fi siyaare waaye bu xante min wi demi laa ko yëg ma taal sama oto daal di ñëw pour siyaar waaye nag damaa xaw a wéré di fi gis nga fi ma toog mënumaa dem mais yéene ji rek moo ma indi ma toog fii fas yéene nekk fii ba ñaan yi noppi ma dellu sama kër bu soobee yàlla. sëriñ bi tey boo ñu ko doon jox ci misaal ban façon nit la woon. sëñ bi nag man wax dëgg yàlla miinu ma ko woon. ndax man waa kër sëñ Mandoumbe laa su ma ñëwee du ma mën a egsi ci moom boo ma laajoon ci waa kër sëñ Mandoumbe dinaa la wax misaali ni mel ak yooyu waaye laa ilaaha illallaah loolu ëpp naa tudd sax foofu foo ko takk rek weesu na ko baax gi moom foo ko takk weesu na ko ak ah, yërma yërmande jeeg man daal sama xol dafa fees sëñ bi jërëjëf